demi-finale ordinateur Radiakhé première demi-finale Radiakhé ordinateur ordinateur à droite ngemboo ngemb lu xonq rajaxe à gauche ngemboo ngembal wiise arbitre génn seen diggante vraiment vraiment combat bi bu ñu ko amoon en finale aussi duñu wax dara ndax combat boo xam ne bi rajaxe ñëwee dañu ne woon du yomb gi génne ko ci bi ordinateur ñëwee dañu ne dafa jël kon ñaari xale yi bu ñu tase en demi-finale ça montre que ñoom ñaar ñëpp mérite bi da leen di revenir waaye nag kii gagné ci diggante ordinateur ak rajaxe njort nañu ne final bi ci sa loxo la jëm. danoo njort rek waaye sous-estimé wuñu kenn ndax CFA ak Boy ñoom ñaar aussi kenn du démérité. mooy deuxième finale bi nga xam ne. wala deuxième demi-finale ku ci daan def nga carton plein wala carton semi plein ndax kii daan final bi mooy def carton plein moo ñëw ci làmb ji dugg si bëre ba finalu ba jël final bi te amul defet ndeysaan lutte simple ngar mi da ciy feeñ njàmbaar da ciy feeñ ndax ku jël final mooy bëre nga ak ña fa mën bëre ñañ fa yaakaaroon daat ñëpp ordinateur ak rajaxe ku nekk bal na sa morom ab loxo ba pare beneen loxo ya moom lañuy ñuy liggéeyee ñu ngay déglu wante tek ndax olof dafa ne boo nee tekk tekk woon la bi yoon te lamb ju mel ni à deux du succès final c'est préférable que ñaari mbër yëpp daal di jël seen temps waaw jël seen mal en patience bu dee da ngay subir bu dee nga nekk si sa temps fort c'est normal aussi nga jël sa temps nga def ndànk-ndànk dimanche bii di ñëw fii gaal gi jak sa woote. Mbayang ak Momo ñoo jël siwaat dimanche le 6 terrain gaal gi arène Adrien la Doudou Niane Sargal Diagne Djilas le 6 novembre jour bi di bëre ak Siteu Jax moo woote dimanche mise bi dinañ ko expliquer ci kanam loolu loolu bës ci biir bës yi attention ordinateur Radiakhé ordinateur Radiakhé demi-finale ay Jax boo wootee fii def fi million 500 ponkal yi si. ordinateur jël na tànk ba génnaat rajaxe da koy génne ordinateur lan lay def ordinateur a nga koy sëkkatal ordinateur a nga koy sëkkatal tànk ba la soxla mu ngay làmbatu ndax rajaxe ordinateur jàpp na ko kal na ko daan na ko ordinateur daan daan na rajaxe ordinateur daan na rajaxe lamb jàngay toj ordinateur daan na rajaxe lamb jàngay toj ay yàlla sinik ay yàlla sinik xake na refe nee na ana ponkali ana Franc ana Serigne ana général Malika ana Ibou obali <laughs> ponkali am ngeen problème ordinateur yi bi nee na bi nee na dafa vidé corbeille nee na fi nee na corbeille ba nee na na ordinateur bi installé waat ko installation bu bees la am waaw defar na machine bi yokku raam yi defar na ko ba muy maaji maaji nee na ren ponkal bu fi daagu danaa jëflanteeg yow ponkal bu wàcc teere gaal gi danaa jëflanteeg yow ren yàlla sidik ñëw na te du may dal Thank you.